bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi tey mooy sunu ñeen fukkeelu jotaay ak benn ci sunu téere bi di tasawudu sigaar tey ñu ngi tàmbale ci faslun fi kayfiyati qadaa'i ma faata xalfal imaam bunt bu am solo la bu mat a bàyyi xel sëriñ bi radiallahu anhu mi ngi ciy jàngale bu fekkee danga nga imaam imaam raw la bu imaam sërmalee nooy fayee lu am solo la ñu bari xamuñu ko mat naa seetantal dana ci leeral tamit waxtu yi ndax julli gu nekk dafa am ay waxtu dafa am ñaari waxtu waxtu waxtu wu ñuy tuddee waxtul ixtiyaar yi ak lu ñuy tuddee al waxtu ab baroori kon loolu sëriñ bi moom la ñuy jàngal moo tax mu ne faslun lii ab dog la fii kayfiyati qadaa ima ci melaw fay langa xam ne faata faat xolfal imaam yi ci ginnaaw imaam dama laa bëgg a jàngal daal bu la rawee moo xam benn rakk wala yaar wala yet bu sëlmalee nooy fexe ba defar sa julli googee fay ko fay gu jaar yoon mu ne aw jib na nga waral na nga atte atte war xalal maamumi ci maamum muy ki nekk ci ginnaaw imaam an yaqdiya ba dana fay maa la nga xam ne xadd faatuhoo faat na ko raw na ko xalfa imaamin ci ginnaaw ab imaam xuddima bopp jiitalees na ko nee na boo ànd ak imaam am lu la raw ci julli gi bu imaam sëlmalee faw loola da nga ko war a fay da ngaa war a jóg fay boo jékki-jékki sëlmal dem sa yoon rek kon sag julli baaxut sag julli matut sag julli kon boo ànd ak imaam imaam raw la bu sëlmalee faaw da ngay fay doo mën a doo mën a sëlmal mu tàmbalee ci jullik suba nag leeral la jullik suba lan mooy waxtoom dëgg-dëgg ab jullit daa war a xam waxtu daa war a xam waxtu ndax saa yooyu julli te bi ngay julli leeru la ne waxtu wi jot na rek julli ko ko du baax kon war ngaa xam waxtu bu baax a baax a baax mu ne asubuxu suba waqtuha waxtoom wa ladal axbaari fa fóore ya fa boroom xam-xam ya min saadiqil fajri mi ngi tàmbalee ci aji dëgg yi fajar ilal isfaari ba ca set ga kon mi ngi leeral li ma doon wax waxtu julli wu nekk dafa am ñaari waxtu waxtu julli wu nekk jëmmi waxtu ba dañ koy séddale ñaari xaaj xaaj bu njëkk ba mooy al waxtu al ixti euh, al ixtiyaari yi mooy waxtu woo xam ne ca wax jamono joojee lañ la sant nga dugal jaamu yàlla nga def ca julli ga boo ko ca defut ba mu génn dangay am bàkkaar te amoo ngànt mooy waxtu wi gën mooy njëlbeenul waxtu wi waxtu woo bu jeexee nag am lu ñu tudde al waxtu ad daruriyu waxtu woo xam ne moom incha allah mooy waxtu ñaareel moom moomit bokk na ci waxtu yi waaye moom ngant rek moo moo moo moom lañ la may moo la mën a gàllankoor ba tax julliwoo ko ci waxtu wu njëkk wa nga doog a ñëw ci waxtu ñaareel wi bu rek nga am bàkkaar tax dañ ko tudde ab daroor yi ab daroor yi ndax lan ndax eh, zawut daruraat ñi nga xam ne dañoo am ay lor mooy waxtu julli jot na te mënoo kaa julli léegi nii incha allah yow da nga am lor xam docteur buy opéré la wala yu mel noona incha allah su ko boo noppee nañu la kon day ko amul nday nàmp maam demal ci waxtu ñaareel wi kon julli gu mu mën a doon suba tisbaar takkusaan timis gee waxtu julli wi dafa am ñaari xaaj li nga xam ne moom moo ci gën nga ne moom lañ la sant nga jullee fa boo amul ngànt ak waxtu ñaareel wi ñaari waxtu yépp bu jeexee nag waxtu wu njëkk wi te mu gën bu jeexee waxtu ñaareel wi jeex kooku kon mooy fay subaana yaa ngi doo ko fay incha allah kon nag mu leeral la ni la suba nag lan mooy waxtoom donte fii sax sëñ bi day mel ne muxtaar rek la fi indi waaye mën nañ mën nañ koo tudd mu ne suba day mi ngi tàmbalee ci dëgg dëggi fajar ji maanaam li ñuy tuddee euh, al fajru as maanaam xaruk fajar gi nga xam ne gu dëggu la xam nga guddi gi dafa lëndëm waaye fajar lëndëmul dafa xaw a amagul leer bu demee ba nga xam ne ñuulaayu guddi gi dem na ñuulaayu guddi gi ak lëndamaay bu dee ba nga xam mi ngi rocceeku ndànk-ndànk nga gis nag jamono ji tàmbalee di leer ndànk-ndànk fajar gi dugg si jamono jooji bu demee ba mu wóor na fi mu toll nag fajar gi dugg na nee na foofu la waxtu suba tàmbalee alhamdulilah léegi montar yeeg asalaatu na mina mi moo tax mooy jamono jooji noddukat bi di noddu noddoog ñaareel gi jamono jooji la kon loolu mënees na koo takk foofa foofu la jullik suba tàmbalee ba fan ba bu demee ba set ba nga xam ne boo gisee kenn incha allah danga nga mën a xam ne kee diw la boo sa buntu kër daal gis am am am koo séen danga nga mën a xam ne kee nit la tayit da nga mën a xam ne kee sax diw la nga ne moom leer na xar kanamam day leer naññ da koy mën a gis foofu la muxtaar mi li gën ci suba foofu la foofu la yem waxtu ñaareel bi nag mi ngi tàmbalee foofu mu set bi mu demee ba set ba nga xam ne léegi leer na ba nga xam ne boo gisee diw danga ko mën a xàmmee foofu la waxtu ñaare bi tàmbalee moom ba keroog nag jant bi fenk bu jant bi ne coow rek génn tuuti rek incha allah xamal ne kon léegi waxtu ñaareel bi jeex na léegi ku julli wutoon suba nag booy julli fu mu toll nii moom da ngay fay da ngay fay kon loolu mooy ñaari waxtoom moom suba ñu ñu bàyyi ci xel moo tax mu ne as subuxu suba sëñ bi fii moom muxtaar rek la fi indi as subuxu suba waqtuha waxtoom wala dal axbaari fa fóore ya min saadiqil fajri mi ngi tàmbalee ci aji dëgg yu fajar ilal isfaari ba ca set ga léegi nag mu jàngal la buñ la ci rawee nooy fayee mu ne fa in yafut ka ndeem raw na la rakaatun benn rakka min ha ci moom suba fa naga jóg bi xayri takbirin ci lu dut kàbbar isan boobee waji te nga andi bi ummi kitaabi rabbika ci nday téereb sa boroom mooy fatiha wa suuratin ak wasaar maa jahrin ànd ak béral wala taqnut bul xunuut ida ma waqaa ndem xunuut woon na radiallahu anhu sëriñ bi nee na suba day ñaari rakka rek la kon imaam mënu laa rawe ñaari ndax bu la rawe ñaari rakka yépp moom mooy amoo ca julli ga dara kon imaam benn rakka dong la la mën a rawe bu la yàlla nga dem ca jàkka ja wala nga dem ca mbooloo ba nga demee fekk nga rakk bu njëkk ba raw na la mooy fekk woo sax rukon ba wala da ñëw fekk imaam taxaw ci rakkam ñaareel bi di jàng faate ak saar wala muy rukkoo te siggeegut nga kàbbar ànd ak moom incha allah su boobaa daal li ñuy jàpp mooy imaam rawe na la benn rakk su boobaa nag imam bu ne asalaamaaleykum nooy def ni ngay def mooy danga nga naan ñokket jug taxaw te bul wax allahu akbar yëkkati loxo mu wuñ ko kenn du yëkkati ay loxo. waaye wax allahu akbar foofa boo ko fa def da naan ñokket jug taxaw boo taxawee ba ne jonn nga daal di jàng fatiha ca kaw jàng aw saar wala aaya ay aaya ca kaw dégg nga daal di rukkoo siggi rukkoo dem sujjoot siggi sujjoot sujjootaal siggi sujjoot daal di taay sëlmal sa julli mat mu ne nag booy julli rakkab rakka boobu yi ñu la woon boo jógee di ko fay bul xunóot ndekam yow bi nga fekkee rakkab ñaareel bi fekkee woon nga imaam bi muy xunóot nga ànd ak moom xunóot kon bu imaam sëlmalee boo jógee di fay ràkk bi ci des bul ca xunóot waaye nag bu fekkee ne yow fekkee woo xunóot ba maanaam bi nga ñëwee daal da ngaa fekk imaam jàng na faatiha ci rakkam ñaareel bi jàng aw saar xunóot ba noppi nga xam ne yow nga doog ñëw nga bi nga ñëwee da ngaa muy rot di rukoo nga ànd ak moom nga xam ne ko nee na su boobaa nag rakkam ñaareel bi boo koy fay boo jógee taxaw te doo kàbbar nga jàng faatiha ca kaw jàng aw saar ca kaw da xunóot dangay ngay xunóot nag doog a rukoo doog a àggali julli gi doog a taaye sëlmal waaye xunóot gi daal moom li gën a li li nga xam ne moom la ñuy sukkandikoo sax moom mooy deesu ko baamu incha allahu rabbi koo xam daal rakk bu njëkk ba moom raw na ko ci suba mu di ko fay du xunóotaat yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp. ñu ngi tolloon ci fi sëriñ bi di ñu jàngale bu fekkee ànd ak imaam imaam raw la ba imaam sëlmaleen nooy def ba fay rakk yi la imaam rawe fay gu jaar yoon. jàngoon nañu suba ba jeexal ko incha allah tey ñu war a dugg ci tisbaar waqtu solaati suhr wa kayfiyatu qadaai almasbuqi alfaita minha waaye bi ñuy leeral suba tuddoon nañu xunóot am ñoo xam ne day mel ne dese na ñoo xam xunuut kon ñu far tuddaale xunuut fii jàng ko incha allahu rabbi xunuut mooy nga wax ne allahumma inna nastaciinuka wa nastaghfiruka wa nuuminu bika wa naxnacu laka wa naxlacu wa man yakfuruk allahuma iyaaka nacbudu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nasca wa naxfid narju raxmataka wa naxaafu cadaabaka aljidda inna cadaabaka inna cadaabaka aljidda bilkafirina mulxiq am na ñoo xam duñ dugal foofu jidda gi dañaa inna cadaabaka bilkafirina mulxiq incha allahu rabbi kon loolu xunoot la am na yeneen xeetu xunoot moom jullik suba ca ñaareelu rakka ba gannaaw boo jàngee faatee ak saar ba noppi bala ngaa rukkoo nga koy jàng boo ànd ak imaam imaam di julli di ko jàngit yow da nga koy jàng nga bàyyi ko xel te kenn ku nekk def positif ci mokkal ko bañ rek naan man mokkaluma nangam nu may def kon foofu la suba yam leeral nañ bu la imaam raye benn raaka na koy fayee tisbaar kon ñu njëkk a jàngale waxtoom sëriñ bi nee na wa min zawali shamsi waqtu zuhri li aaxaril qoomati duuna nukri nee na wa waxtu zuhri danga jël waaw gi boole koog waxtu zuhri mooy wa waxtu zuhri waxtu tisbaar min zawali shamsi mi ngi tàmbalee ci jengar bi kook jant ba ca wëlbati jant ba li aaxiril xaamati wala li aaxiril xoomati ba ca mujjug xaamama ba ca mujjug taxawaay ba danañ ko leeral doona nukkuri ci lu du weddi tisbaar moom it waxtoom da koy séddale yaari xaaj am na waxtu mu ñuy tudde muxtaar ixtiyaariyun am na waxtu wu ñuy tuddee daruriyun mooy niñ ko leeraloon ci ginnaaw fii nag sëriñ bi moom indi na muxtaar mi waxtu tisbaar buñ la laajee fu mu tàmbalee neel wëlbatikook jant ba wala jenker bi kook jant ba luy loolu mooy jant bi bu xëyee day génne ci penk bi war a jëm sowwu bu doxee ba nekk ci digg asamaan si nag nga xam ne day mel ne dox na xaaj bi mu dese ko xaaj bu mujj ba mu war a dox ngir jëm ca famille sooyee maanaam fi ne mi ngi fi mu toll nii xaajal na boo ko doon natt daal day mel ne li mu doxagun bi mu jógee penku ba léegi mook li muy waaj dox ñoo tolloo loolu mooy xaajal na loolu ñu tuddee jenket bi ko jant ba incha allah kon bu demee ba nekk ci digg asamaan si daal di rëcc nag mel na léegi ma nga jëm ca sowu ba incha allah nga xam ne puus na tuuti jëm ci sowu ba nga xam ne léegi nekkatul ci digg asamaan si dëgg dëgg ma ngay rëcc jëm noona jamono jooju la ñuy wax ne mooy zawalu sams mooy jenket bi ko jant ba. boo ko xamee dëgg-dëgg boo nekkoon ci àll bi doo dégg noot doo dégg dara da ko mën a xam booy seetlu tamit jant bi bu tollee foofu sa takk ndeer bi day nekk sa tànk yi day nekk sa ron tànk yi du feeñ du feeñ ndeyjoor du feeñ càmmoñ du feeñ saalum du feer gan du feeñ gànnaar sa takk bi day mel da nga ciy jokki taxaw ci boo xaaree tuuti nag ba jant ba rëcc war a jëm côté sow tuuti sa takk ndeer day génn mi ne lu jëm penk tuuti daal di safaanoog jant bi jant bi jëm sowu yow sa takk ndeer bi di génn tuuti war a jëm penku loolu bu jotee rek na la wóor ne waxtu wi dugg na muxtaarum tisbaar fan la yem mooy bu demee ba nga xam ne nag sa takk ndeer bi dafa tolloog sa jëmm boo nattee sa jëmm ni muy toll incha allah te nee ñu nit ne juróom ndëggoom mooy tolloog taxawaayam ci guddaay kon boo nattee sa jëmm ni mu toll boo ko mètre woon nga nekk un nangam un mètre vingt wala un mètre lu mën a doon ba nga nattee sa takk ndeer dafa tolloog moom loolu nag boo koy natt li takk ndeer bi jot a wëlbatiku bi jant bi rëcc moom doo ko ci boole incha allah foofu la li gën loolu mooy li gën ci tisbaar loolu la waxtu bi waxtu ñaareelam mooy nag la tàmbalee foofii sa takk bi tolloog sa jëmm ja ba keroog jant bay fenk diggante boobu yëpp ci tisbaar la bokk waaye loolu waxtu ñaareel wi la képp ko amul ngànt boo sàgganee ba julli ko ci waxtu ñaareel woowu moom da ngay am bakkaar kon waxtu wu njëkk wa rek nga ko war a julli boo amul ngànt incha allah ki nga xam ne nag daa nekk ba ñaari waxtu yëpp jàll muy doog a julli kooka mooy fay kooka mu waxaale wuñ ko incha allah ab bakkaaram bu fekkee amul ngànt bu fekkee soob na borom bi loolu mooy waxtu tisbaar moo tax sëriñ bi ne min zawali samsi mi ngi tàmbale ci jengat bi ko gent ba ne li aaxiral xaamate ba ci mujjug xaama ma wala mujjug taxawaay ba mooy ba demee ba sa taxawaay tolloog sa jëmm ginnaaw boo ci moyee tuuti bi jant bi rëcc sa ker gi wëlbatikoon nga bañ ko cee boole mu ñëw ci ni nga koy fayee mu in yafut ndeem dana la raw ndeem dana la faat rakaatun benn rakka min haa ci moom tisbaar mi bu imaam sëlmalee fa xum na nga jóg bi xayri takbirin ci lu anduta kàbbar doo wax allahu akbar wa ji ta andi bi xayri um ci ngën gi ndey damay fatiha wa suuratin ak aw saar sirran ci ak yalu wajlis ta nga toog baadaha gannaaw ba wal tatashahad na nga taaya wal tu sallim ta nga sëlmal dégg nga tanfusi kon da fiix <laughs> kon da nga féex mu ne tisbaar a ngi nii dem nga ca jàkka ja wala dem nga ca julli mbooloo ma ba nga demee fekk nga imam julli rakk bu njëkk ba ku neew rakkam ñaareel bi nga fekk ak ñetteel bi ak ñeenteel bi kon julli gi am nga ci ñetti rakk benn rakk rek moo la ci rëcc bu imaam sëlmalee nee na neel ñokket jóg taxaw bul wax allahu akbar bul wax dara bul yëkkati loxo bul def dara neel ñokket ba jóg taxaw boo jógee ba taxaw jàngal fatiha ndànk nga teg ci aw saar ndànk rukon sigi rukon sujjoot sigi sujjoot sujjootaat sigi sujjoot daal di taaya incha allahu rabbi def sa salaatu ala nabi mu jeex nga daal di sëlmal nee na boo ko defee day pare nga ci féex nga féex nga <clears throat> nga bàyyi xel na léeg-léeg danaan la bu imaam sëlmale booy jóg na nga wax allahu akbar bar léeg mun la doo ko wax nga bañ a jaawale yëkkati loxo nag waxuñu yëkkati loxo wax allahu akbar ak bañ ko wax rek la ñuy wax takk-takk bi ma lay jox daal na nga ko jàpp mooy benn yoon dong nga fiy dégg mën la booy jóg na nga kàbbar benn yoon dong nga ko fi dégg ba keroog téere bi jeex te mooy bu fekkee ne imaam jot na laa jiite ñaari rakk ëpput yeesut moom daal lim la jiite ñaari rakk dong la ëpput ñaari rakk ni ki ñett yeesut ñaari rakk ni benn foo xam ne amoo ci julli gi li nga ànd ak imaam matul ñaari rakk booy jóg doo wax allahu akbar loolu leer na yow daal bul xool ba nga ànd ak ba imaam sëlmal daal ba ngay waaj a jóg xoolal man ñaata laa am ci julli bu dee benn nga am ka kàbbar bu dee ñett bul bar bu dee ñaar na nga kàbbar incha allah booy jóg nga ne allahu akbar jeex na kon loolu mooy takk-takk bi du jar ma di ci dellu si nga nga nga may bàyyi xel nag foo dégg man la naga kàbbar rek boo ko seetloo am nga ñaari rakk kon tes baara nga noonu rawee nañ ci benn rakk noon ko koy fayee mu ne waxay suma yefut ka foo xam ne faat na la min ha ci moom tisbaar rakaataani ñaari raka fa xum na nga jóg gannaaw ba imaam sëlmalee wa kabbir ta nga kàbbar nga wax allahu akbar watlu ta nga jàng umma sil xisaan nday borom rafet ga faatiha lay wax tudde dana ko tudde xeetu tur yi ci ay tur yu rafet borom rafet ga mooy alquran faatiha mooy ndayam nee na nga jàng faatiha rek wa suuratan ak aw saar sirran ci ak yalu wala tajlis bul toog isan boobee bal li am kay mooy ji na nga indi bi rabiatiha ca ñeenteelam ba li tanfusa ngir ngir da nga ngir da nga jàll dem sa yoon mu ne tisbaar ngi nii rawe nañ la ci ñaari rakka kon li muy tekki mooy julli gi ñaari rakka nga ci fekke ñu rawe la ñaari rakka kon tey am nga ci julli gi ñaari rakka moo tax dégg nga la wax nee na kon da ngay jóg bu imaam ne asalaamaaleykum da nga naan ñokket jóg ba taxaw ne allahu akbar bu la yëkkati loxo de loolu rek ngay wax daa di jàng faatiha ndànk ndax yaa ngi ci tisbaar jàng aw saar ndànk dem rokon sigi rokon dem sujjóot sigi sujjóot daal di jugaat taxaw mu ne bul toog foofa ndax am nga ci am nga ànd ak imaam ñaar boo fayee benn day nekk am ñetteel da ñetteel dee su ci toog moo tax mu ne boo fayee benn bi jàng faatiha ak saar da ngay jugaat indi ñeenteel ba moom it da ciy jàng faatiha ak saar kon daal bu imaam sëlmali da nga indi ñaari yoo xam ne bu ci nekk faatiha ak saar nga ciy jàng incha allah bi doo ko toog nga doog a toog doog a taaya doog a doog a sëlmal moo tax sëriñ bi ne wa xaysu ma faatat salaatu rakaat minha fa qum bi gayri wa aat li ñuy tàmbalee mu ne wa xaysu ma faatat foo xamee ne faat na raw na salaatu rakaat salaatu rakaatin yetti rakka minha ci faxum na nga jóg ginnaaw bu imaam sërmalee bi xayri takbirin ci lu àndut ta kàbbar de wa aati te nga andi fatihatan fatiha wa suuratan ak aw saara sirran ci ak yalu ta ummu woo xam ne da ko jublu wal tajlisan na ta nga toog daata shahudin di boromuk taaya waxum ta nga jugaat waji ta nga andi bi rakkaatan ci rakka bi ummi dikri ci ndey alquran muy fatiha wa suuratin ak aw bilaa juluusin ci lu ab jotaay boo xam ne yejjiri dana xew dana daw ab jotaay amu fa summa bi rakaatin wala boog summa taati topp da nga dikkee bi rakaatin ci rakka bi ummihi ci fatiha ngay aje ko fal qadaau kon de fay ga saxata nga ne summa bi topp ci ab rakka bi ummihi ci fatiha faxat dong taatihi boo xam ne da ko dikkee mu sirran mbir mu ngay aji yàlla ko fal xawbaaw kon fay ga saxata rod na an ka walif la tey ñetti rakka lañ la rawe ci tisbaar loolu li muy tekki mooy yow julli gi benn rakk dong nga ci fekke kon nag xam nga ne boo jóg da ngay ndax amul lu mat ñaar moo tax kon nee na bu imaam sëlmalee neel ñokket jóg taxaw bul wax dara boo jógee taxaw na nga indi faatiha ak saar rukkoo sigi rukkoo dem sujjóot siggi sujjóot daal di toog foofa ndax lan ndax am ànd nga ak imaam benn boo fayee benn da nga koy boole muy ñaar nga toog taaya julli heure boo amee ñaar da toog kon ba imaam sëlmalee am nga benn fekk nga benn rakk ci julli da ngay jóg taxaw nag te doo kàbbar nga indi faatee ak saar yalu ko ndax yaa ngi ci tisbaar boo noppee rakk boobu da ngay toog toog taaya boo toogee taaya ba noppi nga daal di jugaat taxaw andi beneen rakk boo xam ne faatiha la ak saar moom it nga jàng ko ndànk nga rokkoon si koo de dem sujjóot si gisu daal di jugaat taxaw nag doog a indi rakka boo xam ne faatiha dongu lay doon nee na lii de boo ko defee kon fay gi fay gi jeex na ci yow maanaam la nga waroon def daal def nga ko kon leer na imaam raway na la ñetti rakka am nga ci julli gi benn yaa ngi ci tisbaar sëlmal na sëlmal na moom imaam nee nga ñokket nee nañ la bul wax dara jugal taxaw rek jàngal faatiha ak saar boo rukoyee ba dem sujooti boo sujootee sujoot ñaareel toogal taaya boo toogee taay jugaatal andi beneen rakk boo xam ne faatee ak saar lay doon nga yalu ko nag bu rakk ba matee rek fa toog da ngay jugaat taxaw andi benn rakk boo xam ne faatiha rek nga cay jàng ba tey yalu ko nee na boo ko defee day fal qadaau saxata ank kon la nga waroon def def nga ko fay nga jeex na. tisbaar nag kon noon rek la mën a demee ndax mënuñ la laa mënuñu laa rawee ñeenti rakk ñeenti rakk buñ la ko rawee kon mooy fekki woo julli daanaka xana mucc julli gi dara ndax ñeenti rakk la kon nag jàng nañ bu la ci rawee benn ak ñaar ak ñett. incha allah foofu la ñu dem ci takkusaan waqtu salaati al asri wa kayfiyatu qadaa bu ñu noo koy fayee ak waxtoom mu tàmbalee ci waxtu wi mu ne wa min tamaami waxtu isfiraarin waxtu asri mu ne wa waxtu asri naa da ngay jël waaw gi ak waxtu asri naa wale wa waqtu asrina waxtu sunu takkusaan mii day in jalaa feeñ na min tamaamil qaamati ca matu xaamama al ula gu njëkk ga ilaa waxtu sfiraarin jëm ci waxtu aw gel jëm ci waxtu aw gel takkusaan moom it am na ñaari waxtu wala boog nga ne waxtoom dañ koy séddale ñaari xaaj nañ ko jàngoon ci ginnaaw rek bu ñu laajee waxtu takkusaan wu njëkk wi ñu tuddee muxtaar fu mu tàmbalee neel fa tisbaar yemoon rek fa tisbaar yemoon rek mooy li aaxiril xaamati boo demee ba nga xam ne sa takkandeer tolloo naag sa jëmm foofa la la gën ci waxtu tisbaar yam waxtu takkusaan nag moom foofa la tàmbalee naka noonu daroor yi tisbaar it moom foofa la tàmbalee waaye kon ñu ngi ci takkusaan waxtu takkusaan kon fi muxtaarum tisbaar yem fa la muxtaarum saan tàmbalee ñoom ñaar nag dañoo duggante incha allah xëy na du jar yaatal fii lool foofa la tàmbalee fi sa takkandeer bi tolloog sa jëmmu foofa waxtu li gën ci waxtu takkusaan tàmbalee fu mu yam ma nga yam ca takkusaani suuf mooy bu demee ba ker gi sedd waxtu geelu suuf sa waaye ngir nga gën koo gën koo mën a xam rek nee ñu mooy bu demee ba sa sa takk ndeer mat ñaar sa jëmm bu demee ba sa takk mat ñaari sa jëmm xam nga bi ngay eh, jeexal bi waxtu muxtaarum takk tisbaar fi mu yem mooy sa takk sa takk ndeer dafa tolloo war ak sa jëmm ñu ne kon li gën ci takku tisbaar jeex na léegi nag li gën ci takkusaan tàmbali li gën ci takkusaan bu demee ba lu toll noonu dolli ko ci rek mooy lu tolloog sa takk ndeer ci kon sa takk day nekk day gën a guddee sa jëmm ñaar kon bu fekkoon ne da ngaa natt sa jëmmu incha allah ci misaal ñun la benn mètre la léegi sa takk ndeer bi fi mu toll nii ñaari mètre la kon moo gën a guddee sa jëmmu ji ñaari yoon su boobaa rek li gën ci takkusaan foofu la yem incha allah waxtu ñaareelu takkusaan nag ma nga tàmbali foofu yi ma la wax fi sa takk ndeer bi toll tolloog sa ëpp sa jëmmu ñaari yoon waxtu ñaareelu saan moom mi nga tàmbalee foofu ba ba keroog jant bi ba keroog jant bi sox kon ñoom seen ñaari daroori yu ñoo ànd di dem ba keroog jant bi sox li fekk jant bi sowut boo waree julli tisbaar wala saan jàppal ne fa yoo de yaa ngi ci waxtu yi bu jant bi yee nag nga doog a jàpp ne kon seen ñaari waxtu raw na la léegi da ngay fay waaye li fekk jant bi sowut yaa ngi ci seen waxtu ñaareel wala asru takkusaan mii nag fil qadaa'i ci fay ga bu la ci imaam rawee mislu wuxri mi ngi mel ne tisbaar meema ja meema la jàngaloon rek xarfan bi xarfin araf ci kaw araf xinda kulli xibrin fa bépp aji jàng fa bépp foore mu ne jàngaloon naa la tisbaar buñ la ci rawee benn rakka ñaar ba ñett nga ne ko waaw mun la bu fekkee dégg nga ko def nga ci posté ba dégg ko bu ñu la laajee saan neel ni ñuy fayee tisbaar la ñuy fayee takkusaan ñoo bokk lépp julli gu ci nekk ñeenti rakka la gu ci nekk yaari rakk yu njëkkee dañ ciy jàng faatiha ak saar te yalu ko yaari rakk yu mujjee dañ ciy jàng faatiha dong ca yalu ko incha allah kon ñoo bokk lépp kon daal bu dee fay gi moom ni ngay faya dong ngay fay mooy buñ la ci rawee benn rakka ba imaam sëlmale da ngay jóg te doo wax allahu akbar indi faatiha ak saar yalu ko daal di toog taaye mu jeex buñ la ci rawee yaari rakka bu imaam sëlmalee da nga naan ñokket ne da nga naan ñokket ba taxaw ne allahu akbar andi fatiha ak saar jugaat euh, taxaw andi fatiha ak saar daal di taaye jeex mu na tarawee yetti rakka bu imaam doo wax allah akbar nga naan ñokket taxaw andi fatiha ak saar yalu ko rakka boobee toog taaya jugaat taxaw andiwaat fatiha ak saar jugaat taxaw andi fatiha dong moom niñ koy fay ci tisbaar lañ koy fay ci te takkusaan yàlla na saa borom mboole nu defal ak dégg asalaamaaleykum moo tax sëriñ bi ne wa min gurubi shamsi waqtul maghribi ila maxiibi shafaqil muhaddabi mu ne wa waqtul maghribi mi ngi tàmbalee ci sowuk jant ba moom neex naa xam ila maxiibi shafaqi ba ca fàdduk safax sa al muhaddabi la di sellal ñu la laajee waxtu timis fu tàmbalee neel bu jant bi sooyee rek moom daal yaa ngi seen jant bi muy dugg mu dugg ba dugg ba jeex ne pëndëx jeex takk incha allah mbay ba mu wër rek ne la waxtu timis moom jot na bu fekkee da nekk foo xam ne neexut a gis nag léeg-léeg da nga defe ne da nga dem ba gisutoo ko nga defe ne sona fekk des na yaa ko gisut boo nekk ci yenn dëkk yi xam ne ay dëkk àll la nga xam ne du am dara loola làq da ngay jàkkaaroog jant bi incha allah muy dugg di dugg di dugg ba jeex takk ba nga ba mu wóor na dugg na ba jeex rek waxtu timis foofu la tàmbalee mu dee léegi nag montar yi yi li gën ci waxtu timis fu mu yem nee naa na li gën ci timis moom foofu la tàmbalee mooy fi jant bi sooy rek li ci gën nga xam ne ci lañ la sant nga jullee ko boo ko jullee am bàkkaar fu mu yem mooy bu jant bi duggee ba noppi jant bi day bàyyi ay mboq mboq ay xonq-xonq ci asamaan si jant bi day bàyyi ay xonq-xonq jant bi dugg na waaye am na ay xonq-xonq yu mu ci asamaan si xonq-xonq yooyee bu demee di dugg moom bu jant bi duggee ba ci kanam moom it da topp di dugg ndànk-ndànk di dugg di dugg ba jeex tàkk bu duggee ba jeex tàkk nag jàppal ne loolu mooy waxtu timis li ca gën loolu mooy moxtaaram la ñuy woy moxtaar mooy bu jant ba sooyee moxtaar mi tàmbali na xonq-xonq yi jant bi àndal bu demee ba ñoom ñëpp ñu dugg ba jeex tàkk nga ne gisatoo dara lu ñu roog xonq-xonq waxtu timis la ca gënoon jeex na muxtaaram jeex na loolu nag bariwut moo tax dañuy wax rek bu jant bi sooyee nga jàpp sol say yére dem julli sa ñetti raaka yoo xam ne eh, incha allahu rabbi seel na baax na boo sëlmalee rek daanaka booy génn da ngay gis jant eh, xonq-xonq yi daanaka dañuy jeex tàkk daanaka bariwut moo tax moom dañ koy xaw a gaawe dañ koy gaaw xaw a gaawe waxtu ñaareelam fu mu tàmbalee waxtu ñaareelam ma nga tàmbalee foofu ma la wax mooy bu xonq-xonq demee ba dugg ba jeex tàkk waxtu ñaareelam tàmbali na ñu koy tuddee daroo yiw fu mu yem ak a gudd ma nga yem ba ca fajar ga ma nga dem ba ca fajar ga incha allah rabbi moom dafa gudd kon yow mi jullit gee yow mi jullit timis ngeen déggal no li feek fajar judagut na la wóor ne mën ngaa julli timis waxtu wam jeexagut waaye nag bu dee da nga ko yeexe ga nga ba di ko julli heure boobu nag du ngant da nga julli yóbbaale sa bàkkaar yàlla na yal na yàlla jéggal kon loolu mooy ñaari waxtoom ñu ñëw ci nit ñuy fayee cheikh bu tedd bi nee na fa in yafut ka ndeem raw na la ndeem dina la raw ndeem dina la faat rakkaatun benn rakka min ha ci moom timis mi faxum na nga jóg de mu kabbiran ngay aje kabbar wajhar ta biral bi suuratin ci aw saar wa ummi wa um la bin waaye jàngal wa ummi kitaabi rabbika ak nday téereb sa borom alkarim kay aje tedd al akrim ka gën a tedd tafuz kon de danga texe bi ajri rabbika ci yoolub sa borom al mukarrimi kay aji terle kay aji joxe teraanga timisa ngi noonu nee na ñëw nga ci jàkka ji wala ca mbooloo ma rakk bu njëkk ba fekke woo ko kon ñaareel nga fekkee ak ñetteel bo imaam sëlmalee da nga naan ñokket jug taxaw daan ne allahu akbar lu tax ndax julli am nga ci ñaari rakk te loolu lañ la waxoon am nga ci ñaari rakk ëpp di yéesut ba tey ba tey ba reegal bañ la jàngaloon xëttut incha allah bu imaam sëlmalee nga jóg ne allahu akbar jàng fatiha ak saar rukkon si girukon dem sujooti daal di taaye sëlmal mu jeex nee na moo tax ma ne loolu de boo ko defee da am sa yoolub yàlla ndax jullee nga niñ la sante woon incha allah da nga am yoolub sa borom subhaanahu wa taala leer na waxay suma yefut ka foo xam ne dana la raw min ha ci moom timis mi rakaataani ñaari raka fa xum xam nga fa bi waaye da jël fag yi boole ko xum nga mooy fa xum na nga jóg bi siwat ci lu ëndut ak kàbbar ci lu dut kàbbar ci lu dut ngay wax allahu akbar bilaa tabaana ci lu dut yeexe wal taqra ta nga jàng alfatihata fatiha almuawama la di lu màggal zarfal ulumi ndabal xam wala mun a ak aki xéewal almukarrama la di lu ñu teral wala madi ma ñu teral wa suratan ak awsaar bil jahri ca biral ga wa tashahudi ak taaya ja wa ji ta nga jóg wa ji ta nga andi wa ji ta nga andi bi misli saa kem rakk bii wasallim ta nga sëlmal tuxmadi kon de santees la timis ngi noonu nee na tey moom ñaari rakka lañ la ci rawee loolu lu may tekki mooy julli benn rakka dong nga ci am te waxoon nañ la boo amee benn rakka wala ñett incha allah su boobaa moom doo kabar moo tax nee na da jóg taxaw ci lu ëndut a kabar boo jógee taxaw nga daal di jàng faatiha mi yàlla màggal lool nga xam ne xam-xam yépp ci lañ ko tibbee xam-xam yépp ci ci faatiha la jóge dégg nga yàlla defal ko teraanga lool nee na nga jóg jàng faatiha akaw saar nga béral ko daal di rukkoon si rukkoo dem sujjoot si gi sujjoot daal di toog foofa taaya da ngay toog foofa taaya ndax lan ndax imam jiite na la benn fay nga benn boo ko boolee day ñaar ñu bari nag danañ faral di juum ci nii ñuy fayee timis timis boo ci amee benn rakka bu imaam sëlmalee boo indee benn rakk dangay ngay toog taaya boole rakk bu njëkk ba mooy ñaar nga toog taaya boo taayaa ba noppi nee na jugal nga indi rakk bu mel nii ma la wax léegi mooy lan mooy rakk boo xam ne faatiha ak saar nga béral nga indi ko su ko defee daal di mu jeex kon timis moom ñaari rakk rek lañ la ci mën a rawee ndax moom ñett rakk la kon nag buñ la rawee ñaar imaam nee na asalaamaaleykum loo am ci julli gi benn rakka kon xam nga ne yow doo kàbbar da naan ñokket jóg taxaw. daane alhamdulilahi rabbil alamin tàmbalee jàng mu jeex nga jàng saw saar nga sëgg rukon sigi sëgg sujjóot sigi sëggaat sujjóot sigi daal di toog taaya boo taaya nga jugaat taxaw indiwaat beneen rakk wax na faatiha saar comme bii rek incha allah su ko defee julli mat na nga toog taaya sëlmal yàlla noonu saa borom defal tawfiq rabbi ya ahmadu ala muhammadi